ndeysaan maa ngi jaxaaw sama grand Ibou Diop mécanicien bu mag ba ca maa ngi koy ziar Ibou Diop fàttewu ma la moom ci diwaanu jaxaaw la dëkk ndeysaan fi ñuy wax ngeexoox Ibou Diop maa na ziar moto bu pan ci Ngéejaan li ko nga dépanné ko. Eh! waaye Ousmane Faye eh Diatta Diatta Elimane daan na ko waaye Ousmane Faye eh Diatta Diatta Elimane daan na ko Ousmane Faye menuisier bu mag bi jëlal loolu Elimane daan na Diatta bu